Halat. bokk na ci li gën a soxal doomi aadama xalaat pour jokkoo ngir sa business wala lu la itteel wala jokkook say soppe FIG bureau de change ñu ngi fii ngir gis ne jokkoo boobu am na te léegi suñ banking hall bu ees bi nekk ci Kairaba Avenue dafa gën yombal yónnee ak jot xaalis FIG bureau de change mooy MoneyGram bi jiitu ci réew mi ñu am lu toll ci ñeneen fukki banxaas ci ñaar fukki màkkaan ak juróom-ñetta ma caamee ki ci gisee. jigéen sama yow moom gëj naa laa gis yow bii rafet na bi bii kañ la nii. daañu rek rap ak jàmm waay. mbaa incha ko kay. ah mais mosuma National Insurance Company ca Kereba ñu bokkuñ ci ñooñu de. lu weesu fanweeri at ak juróom-ñaar ñu ngi ci biir réew mi di ñu aar suñu wàllu moto yi. kër yi yoon yi tukki yi sa xaalis sax dañ koy aar. déedéet xanaa. waaw waaw ñu wóor lañ nag te mun seen liggéey seen teewaay ci biir réew mi yokk na fi kóolute de loolu de neex naa dégg. gis nga bi ci gën a tee neex nag ñoo gaaw a fay yàqu-yàqu. dañooy fay. dañuy fay yàqu-yàqu ci ni mu gaawee. boo eboon daal dawal dem incha yi. ah kon xaaral ma dem fagaru. defal gaaw moo gën faju. jërëjëf suba caabi. jërëjëf bii moom da ko war a incha ah. xaaral ma ah, waay waay waay ràpp ak jàmm waay. Gambia National Insurance Company seet si leen ñu tey pour seen bépp wàllu insurance. la ilaha illallah. suma bopp bi taju jaxlena xawma naka lay def dugana genn na eg na dara mënu ko sotti man jahlena di lu xew waaw li xew xamuloko di dugana genn na wàcc suma testandi dalay jeex munuma fexe fexe fexe be am li ma soxla waxtu wi waron na fekk xale yi yone xaliss bi bu yaga waye dara munu ta soti dara way way way lii man xawma di moy lan hello góor gi Thierno day man la mangi ni xaalis bu jotee bu jógee bitim réew ah suma doom jël <laughs> Africa Transfers réewi Gambia dama ne Hey, why watya sina ci biir réew mi di Africa Transfers British Change Money Transfer ak fu waay mun a ne ci àdduna si soo buggee am lu la noppal ci mbirum yónnee a jot sa xaalis demal Africa Transfers fii la yónnee xaalis sampee mbaax te saa yoo jëflanteeg ñoom la bànneex a neexal yu duuf te am 56 Karaba Avenue Lucozid Energy, energizing Gambia. lépp a ca biir duplex at bu bees lépp lu bees ànd seeg la diva de la musique sénégalaise Coumba Gawlo Seck UN ambassadeur yu jigéen yi pare leen ça sera en live ca club duplex Saturday 21st January 2012 Coumba Gawlo Seck dina dee teewaay dina àndandoo di king of tasuwa sekkal mu naara yàlla yàlla yan lu góor attanul wasin ak boot ak nàmpal la góor manul ey kon gars yi pare leen tickets 250 dalasis before 12 midnight 300 dalasis after midnight VIP 350 dalasis plus one free drink Coumba Gawlo Seck la diva de la musique sénégalaise Seckal le Moulou Nar ñaari ndaanaan ci benn guddi ci club duplex Saturday 24 January 2012 dencal leen lu bees tax gars yi Coumba Gawlo Seck la diva mu ne topp leen ma. soo ma bëggee jege ma soo ma nobbee ma sekkaan ne ko accaleen ñu lëmbal gaay gaay gaay baax kon gaaji rendez-vous ca club du Blaise boobu guddi ey dina tës gën gaañ lépp rek ca biir duplex at bu bees lépp lu bees ànd seeg la diva de la musique sénégalaise Coumba Gawlo UN ambassadeur yu jigéen yi pare leen ça sera en live band ca Saturday 21st January 2012 Coumba Gawlo mul naara ngeen la yàlla yan lu góor attanul wasin ak boot ak naa gagne Berlin. Tickets $250 is uh, before 12 midnight. $300 is uh, after midnight. VIP $350 is uh, plus one free drink.